ñu tànn Ismaël Madior Fall ne moom mooy candidat jeunes yoy nak ñom ñoo ñëw fi tay ci terrain basket Arafat pour déclarer candidature du ministre d'État donc ñun dañ fi ñëw tey euh, ma le chef de cabinet du ministre d'État Ismaël Madior Fall ma ñëw euh, fekk ji euh, waxtan content. mais dama kontaan li tax ma kontaan dama xamné ne sama jeunesse jeunesse pour consciente la dama xam sama jeunesse jeunesse pour réfléchir. la dama xam sama jeunesse jeunesse pour euh, organiser, là. ñu tànn le ministre d'État Ismaël Madior ndax gis nañ ne nit ku ku jub la moom taxul dara moom kenn mënu ko dara masul laal daray dëkk bi kenn masu ko joxoñ tam ne ko yaa fi defon li wala ya ko def lii ñu gis ne am yar ñu gis ne am na ñu gis ne am compétence ñu gis ne am na programme boo xamante nii mën na régler problème waa Tëngéej ñoom ñu nekk xale bu ñu gisee loolu ba nekk xale yi tuuti gis loolu ba di ko def ñun mag ñi mënuñoo nekk insensible à waaye dama fi fekk loo xam ne dafa gën a dawloo sama yaram parce que dama gis ay xale yoo xam ne xale yi tuuti yoo xam ne tollooguñu si voté waaye wan nañ ñu ne tolluñu si voté waaye si dëkk bi lañu bokk parce que yàgg-yàgg dañuy toll si voté te dëkk bi tamit wan nañu ne daf leen ñor moo tax

si commune yop ne est nord ouest coordination yoy chaque quartier am nañ représentant coordination yoy am nañ bureau bu ñu inscrire suñuy rakk primo votant ci liste ba paré dañu né ñun dañuy taxaw pour tey jii def cérémonie bo xam dañuy né ñun Ismaïla Madior Fall lañu investir ñun ndaw Tëngéej lool nak soko gissé parce que tey jii kii di Ismaïla Madior Fall ndaw Tëngéej dañu am ci mom yaakaar